ministre de la Santé et de l'Action sociale, maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Dakar wala soxla Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dakar soxla Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye la ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow bëgg nga nekk ca mairie Dakar jaraaf yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi Dakar ànd nañoo ak yow. farba yi nekk Dakar ànd na ñoog yow ndey jàmbur yi nekk Dakar ànd na ñoog yow nee na ñu affaire bi yow maam yi fukki pej ñaari ay sey groupement famille mouvement yi nee na ñu Ablaye moo gën ci Dakar waa santé loolu la ñu wax Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg ca mairie Dakar mouvement Abdoulaye Dakar ñu ko soxla bare nañu jóg taxaw ànd ak yow da borom Dakar président makisal sant na la gërëm askan bi kontaan nañ si sa taxawaay ak sa liggéey lébu borom Dakaru Abdoulaye Diouf Abdoulaye yow la ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye la ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow farba jëg ñaari ay sëy groupement famille lay mi gën xalaat waa sant la gën wax Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Jameeri Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Abdoulaye yow la ñu bëgg nga ci mobilisation bi ni ngeen teeroo monsieur cent pour cent la ñu bëgg Cambérène donc monsieur le ministre monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr prochain maire de la ville de Dakar Cambérène s'est réunie toutes les populations de Cambérène monsieur le ministre ñu ngi lay dalal ci sa dëkk fii monsieur le ministre Seydou Diouf Ablaye Diouf Sarr dëkkam la voilà donc monsieur le ministre ñu ngi lay dalal di la wax ni Cambérène góor ak jigéen mag ak ndaw yëpp pare nan pour def de toi le prochain maire de la ville de Dakar li tax ñu bëgg la def prochain maire de la ville de Dakar monsieur le ministre dañoo xam ni vous êtes largement à la hauteur pour relever les défis auxquels les populations de Dakar sont confrontées. Monsieur le ministre fi jaar yëpp vous avez laissé des traces et j'allais des traces indélébiles donc monsieur le ministre su ma la ville de Dakar gëm ni population de Dakar di leen kontaan ci kon monsieur le waa Cambérène dafa am lu ñuy xaar ci ville de Dakar mooy dañoo bëgg ville de Dakar jàppale dooleel Cambérène ci projet ak programme yi ñu bëgg taxaw am nañ yaakaar ni xaw ma keneen yow soo nekkee ville de Dakar ñun duñ parti maire de Cambérène wax leen waaw d'une vingtaine maire de Cambérène pare ngeen d'une vingtaine ca kaw a kaw waaw Abdou Azar dama coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg une victoire sans pareil sans égal dans le Sénégal dañoo bëgg monsieur ministre nga am assurance que Cambérène ànd pour far la def de toi le prochain maire de la ville de Dakar su ko defee incha allah monsieur maire suñ ko falee mu ànd ak Doul Pathé ñu yeesal Dakar bu yees ak avec Abdoulaye Diouf Sarr Cambérène bu yees ak Doudou Fata Mbaye donc monsieur ministre ñu lay dalal di kontaan li fekk nga ñëw fii seet si say mbokk seet si say xarit seet si say am di jàmb mais seet si ay kilifa yi nga xam ne da leen teg fu kawe muy les bu les les autorités religieuses de Cambérène ñoom ñëpp ils sont prêts à se battre pour que nga am une victoire écrasante au soir du 23 population de Cambérène maa ngi nuyu xalifa général des Layènes di yàlla mu yàgg fi wër lool yàgg ñu leeral si yoon maa ngi wax ne tey wax dëgg yàlla léegi campagne bi jeex mais mobilisation bi ñu gis fii si Cambérène gisuñu ko si benn commune kon Cambérène jël le record de la mobilisation je suis sûr que le janvier Cambérène de jël le record du résultat maa di remercier di remercier bu baax madame Yaay Fatou Thiaw Laye maa ngi koy remercier bu baax maa ngi remercier les amis de Diouf maa ngi jël remerciement bu mag di ko teg ci loxo soxna Astulaay nga joxal ma ko waa Benno Bokk Yaakaar yépp la grande coalition de l'unité une coalition boo xamante ne Benno Bokk Yaakaar moo ko porté moom moo wax de manière unanime ne seen candidat fii ci Cambérène c'est le prochain maire de Cambérène Doul Pathé Mbeng la même de l'unité portée par le Bokk Yaakaar parce que Bokk Yaakaar moo ko boot moo ne seen candidat à la ville Abdoulaye Diouf Sarr le tudd bon de l'unité il faut ñu wax leen mooy lan coalition de l'unité fii ci Cambérène kilifay Cambérène ñoo ko ñaan président Macky Sall ne ko Cambérène du n'importe dëkk ci Sénégal Cambérène dëkk la boo xamante ne mooy taaru Ndakaaru Cambérène dëkk la boo xamante ne dafa am ay kilifa yu wér moom seen baat ñu ne président bàyyi ñu ñu dajeeg suñu njaboot tànnal la kenn jox la ko président ne leen dellu naa gannaaw lu ngeen def rek noonu la ñu dajee tànn Doune Pathé Mbengue président ne leen yéen waa Cambérène yéen a tànn Doune Pathé Mbengue mayo Benno Bokk Yaakaar mu ngi ne jox naa ko ko na sol Honorable Boun Pathé Mbeng coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko tabb tabb Abdoulaye Diouf Sarr ville de Dakar honorable waa Cambérène bulletin bi benn la du ñaar bulletin bi moo yor ngërëmu kilifay Cambérène bulletin bi ku dégg ndigal ci Cambérène moom ngay voté bulletin bii li Cambérène ñaan Macky Sall ba mu may leen ko si bulletin bii lañ koy traduire maa ngi leen di demander waa Cambérène le 23 janvier ngeen dëgëral Cambérène mooy jox ko une majorité écrasante te ki xamante ne may kilifa yi ne leen tànn leen ku leen neex seen dëkk seen dëkk yéen ko moom bu si xool résultat Cambérène dana a ah, gàcce ngalaama ñi kat liñ doon ñaan ger na ko bon nag ma am na lu ma dégg sànq ngeen way ko laa ba ngeen yekk ko ndigal la ñuy